ñii tënk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 من عند ربنا السلام هدى ورحمة للأنام وعلى آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام المهاجرين والأنصار صلاة تتعاقب تعاقب الليل والنهار ورضي الله عن صاحب ختم الولاية سيدي وشيخي أحمد التجاني الشريف وعن آله وأصحابه وعن كافة أهل طريقته wa radiya allahu an muridihi wa abdihi saaxibi alxadrati haadihi sayid alxaaji malik si ibnu usmaan wa an aalihi wa asxaabihi wa an jamici man taallaqa bi azyaarihi wa radiya allahu an saa'iri ahli llahi ridan laa suxta bismillahi rahmaani rahiim allahuma tabarratu min xawli wa quwati wa atasamtu bi xawlika wa quwatika wala xawla wala quwata illa billahi alali alazim wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi sant yàlla ñi ngi julli ci mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu yëg ci suñu xol ci it kàddu yi ñu fi dégg ci it fexee leeral ay masail yu aaju ci suñu dund waaye aaju ci suñu diine waaye ma dellu sant yàlla ci ëtt bi ñu koy waxe ñun lu ñuy xamas as néew néew néew fii lañ ko xame du feneen jëmu jiitool it moo ñu ko xamal du keneen jàngal nañu ko ci anam bu sëriñ mën a jàngale taalibeem bi jàngal nañ ko ci anam bu kilifa mën a jàngale njabootam ñi ngi gërëm intervention yi jiitu yépp di rafetlu kàddu yi ñu ngi gërëm teewaayu ñu fi tudd ñépp ngir yàlla ak lu leeral ak lu jàppandal waaye dellu di gërëm sama baay bi bu baax ci barkeem man laa bokke ci lii ci ndigalamtam tam laa ciy duggee idée yi ma nar a défendre it du sama yos yosam la du yosam yu daara ji la idée yi ñu nar a défendre du sama yos yosama waaye du yosam yu daara ji la daara ji nag mooy suñu ndono ñu kenn ku nekk ci ñi fi maa ngi lay wàcce sa wàccuwaay ci wàllu xam ci wàllu xereñ ci wàllu docteur ci wàllu liggéey ak ci wàllu yu mooy wàllu taalibe ak bokk benn yàlla di sant dellu sant sama ndax daf ma daf ma yombalal nan laa waroon duggee ci géew bi sidi dinaa wax ni ni nga bëggee ni gaa yi waxee nga bëgg ma jaar si di ma may si du mën a nekke noonu ndax waxtaan wi dafa jiitu woon ab waxtaan moo ko jur ñu dem ba yegg siwaat fii nasaat ko nasin bu rafete nii ci teewaayu kilifa gi ak borom xam-xam yi man mënuma yaakaar nit bu fekkee ni ñu ngi ciy soog a dugg ci fukki minute mën naa ci tënk position bi may wax ni position daara ji la ci lu ñu jàngee ci kilifa gi toog mënuma ko ci fukki minute dinaa jéem a def nañu def ñoom ci leeral waaye nag faw nga fukki minute moom si comme nag yaay modérateur dama la ko ñaan waaye ñaan ko mbooloo ah Moustapha kooku foog ngeen may ma ko wala ba ma wax ca fa mu yem bu leen neexee ngeen arrêté bis bis ñu dellu siwaat ba tey li ñuy tàmbalee mooy gis nañu ci li ñu jot a gëstu ma ni ci xam-xamu suñu wayjur bi ni masala tahdidu nasli wala masala tanzimi nasli masala bu yitteel la fuqahaa jamono jii al muasirin al muslimin tudd ngeen fi ay congrès avant yooyu am na yeneen yu ko jiitu woon gannaaw ga yeneen dina ñëwaat jullit yi dañoo am problème ak affaire u tandimu nas la ak tahdidu nas d'abord ci njaal benn ñun tahdid lañ doon dégg dëgg-dëgg dëgg-dëgg ci njaal benn loolu lañ doon dégg ñu jékki-jékki nañu ñu tandim enfin pour mën ko adoucir ma yaakaar ne tam débat bu ñu koy def dafa war nekk un débat contradictoire kenn ku ne indi sa xalaat waaye bu fekkee ñun ñëpp ñoo dëppoo xalaat ni ko si di waxe ah ku ne yokk ci leeral la sa moroom leeral sa ginnaaw kon loolu tuddatul débat il faut mu am ñu féete fii am ñu féete fee ñu def ko nag ngir leeral euh, euh, du du du defuñu ko defuñu ko miraan waaye mun mënta ñàkk fikra muarida c'est un débat dafay nekk contradictoire bañ ci fexee tàbbi dañoo dañoo làmbatu xadis yi ñu jàngal ñoom ñii ñu fekk ni lenn ci boroom xam-xam yu bari ci ahadis yooyu jam nañ jam nañu leen boo ci wax rek ba yaakaar ko ñu bind la ca suuf daif la an diw an diw xatta حتى تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة nee nañu daif donte ñun loolu du mas a daif ñun ndax moom lañu xam حتى ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله عز وجل من التزويج sang bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale bu jëf yu baax yépp dee tabax amul benn tabax bu gënal yàlla ci tabax yi bu ëpp solo tabax bi ñuy tabax ci diggante ñaari way dencante ndax la say juddoo mën di wéy di bàkk yàlla na ko maam yi ak bàyyi daan def xatta tazawaju al wajud al walud ñu ne daifun kon mu ngi bëgg jaaxle sang bi ne bu ngeen demee bay denc taamu leen jigéen yu taaru ñoo xam ne bu ngeen leen xoolee ñu inspire leen seen yéene rafet ngeen dawal ko ci ñoom waaye taamu leen ay jigéen yoo xam ni ay juraakoon yu mën a jur nee nañu daay manikon ni kon pexe comme jam nañu ahadis dañuy dellu ci alquran ca lañ ci yàlla yenkewal dàqontewul nag li fi docteur wax ak li docteur Ousmane wax ak li docteur Moussa wax ak li Sidi Yaxal dàqonte wu waaye foofu la ñuy mën a déparé pour egsi fi ñu egsi may dellu di sant papa Serigne Mbaye moo ma may mu dugg ci géew bi ci anam bi nga xam ne noonu laa ko bëggee woon discuter non pas de l'idée de planification mais du principe de la planification nationale idée ak principe du benn principe mooy la jur xalaat ba ak la fa mu ñu mën a yóbbu ak la tey sosu bu ñu fa yóbboo c'est ça le principe ñu déparé aaya bi nga xam ni sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sadiqul masduq te jàngaleem yu kawe ya moo ko jàngale ni ann al islaam axalla ma xalla wa xarama alxaraam bi dalili qawlihi salawatullahi alayhi wa salaamuhu alxalaal bayin walxaraamu bayin wa baynahuma umurun mushtabihaat laa yaalamuhunna kasirun min annaas sang bi ne lu dagan dafa leer naññ lu araam dafa leer naññi diggante mi nag yàlla mi am sañ-sañ am na lu mu ci bàyyi mu nekk ay lënt-lënt yàlla ko sañ ni ko sang bi leere la lënt-lënt yooyu nee na karaa yi yaraa xawla al ximaa yusaku an yaqaa fii nee na lënt-lënt yooyu bu ko jéem a yër waxuma bu ko jege sax ba ciy dàgg da ngay mel na ab sàmm buy sàmm xawla al ximaa di ci li wër tata bi lu mu ko gën a jege rek mi ngi gën am chance u tag bi ca biir te waru cee tag te sang bi ne buur bu ne danga am tata nee na tata yàlla mooy maxaarimuhu fa inna li kulli malikin ximan wa inna ximallahi maxaarimuhu yàlla am na ñeg bu mu def ci biir nag diggante alxalaal wal moo ko alxalaal wal wal wal xaram alxalaal wal xaram moo ko ñagal boppam ni bu ko kenn jege sa waxumaa di ci tàbbi mu nekk nag masala boo xam ni masala muasira la war nañu leer leerlu ko ndax dafay dafay engagé suñu dund dafay engage suñu mu réew dafay dafay dafay coloniser suñu suñu suñu possibilité ak ay opportunité de développement ndax ci ressources humaines yi lañ ko yaakaar si di loolu kenn mënu koo tënk en di minutes rawatina bu fekkee nag daara ji tey dañu fas yéene joxe seen xalaat ci anam bu leer te wér sëriñ bi jàngal nañu ni jullit dafay dafay tënku ci fi'lul ma'muraati wa tarkul manhiyaat bokk na ci li nga xam ni moom lay yàlla digle ñu war ci tënku maa xadda alayhi lislaam ala lisaani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yaani azziwaaj wa istixbaabi l li nga xam ne lislaam moom santaane na ko soññe na ci encouragé leen nit yi mooy nañu sëy te nañu nañu am njaboot nañu jur dàqantewul ba tey ak planification familiale parce que planification familiale waxul ni kenn du jur waxul loolu bokk na ci li nga xam ne l'islam tam tere na ko min al manhiyaat yi ma damma bihi l islam yaani al ruhbaniya wa tabattul wa sawura islam dàq na lépp luy labbewu ak lu koy nuur labbe labbewu mooy bañ a am soxna lislaam dàq na tam le célibat toog te doo am jabar doo jël doo denc xadis yooyee mu ñëw jël jóge fu ñu ci ay ay ay saxaaba yu wér ci ay boroom xam-xam yu wér waaye ngir tënk ma ni ba ma gisee ni jam nañu lenn ci suñu ci suñu ahadis yooyu nañ ko bàyyi ñu wëddoog ci alquran mi nga xam ni yàlla moo koy sàmmal boppam kenn mënu ko ñu seetlu ni yàlla ci boppam sàkku njaboot mahbubun inda allahi wa muraghabun eh, eh, fihi inda rusulihi alkiram ka sayidina ibrahim wa sayidina zakariya wa sayidina daawud wa gayrihim min annabiyina alayhim wa ala xaatimihim afdalu salaati wassalaam yàlla ci boppam bëgg na ku koy ñaan njaboot yàlla ci boppam sawar na ci maye alquran moo ko layal boppam sayduna ibrahimul xalil seetal yonent la nabiyun nabiyun mursalun muy ñaari grade wa min ulil azmi di maam direct ci sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na wattaxada allahu ibrahima xalila man maa ko jàppal sama bopp muy sama xalil ma ni ba teranga jeex fii ci àdduna nubuwa moo ci ëpp solo bu ngeen xamee beneen wax leen ma teranga bu yàlla mën a defal oo doomu aadama ci suuf ba teranga jeex nubuwa moo ci ëpp solo yàlla defal na ko teranga ci alaxira ba teraanga jeex tabbi aljanna moo ci ëpp solo tamaamu niamati duxulul jannati wan najaatu min annaar lañu sang bi sallallahu alayhi teranga ci biir aljanna ba teranga jeex gis yàlla moo ci gën a kawe yàlla na ko yàlla war si waaw kii yàlla def na ko yonent yàlla def na ko nabi yàlla boole na ko ci les cinq hommes de def ko muy maam direct ci sallallahu alayhi yàlla mooy ko mu dund téeméeri at yu teg ñaar fukk ak nangam yàlla def ko muy xaritam yàlla nee na maa ko xaritoo mu dem ba yëg ni mi nga waaj a dellu ci boromam amul lu muy sante yàlla lu dul alhamdulillahi alladi wahaba li ala alkibari ismaila wa ishaqa inna solo Ibrahim alors c'est le père du monothéisme c'est le chantre du monothéisme Ibrahim moom kenn li mu jaamu yàlla bu àddina doxoon di mooy yàlla yàlla doy na la doyloo doyloo na la ko Ibrahim jaamu wëlis yeneen jaamu doomu aadama bu ñëpp nekkoon di mooy la ko Ibrahim jàmm doy na yàlla moo tax ñu def ko le père du monothéisme amul ba mu demee ba yëg dafay waaj a dellu ci boromam amul lu muy ñaan yàlla lu yàlla wërsal na ko njaboot boo demee ci yeneen laaya nga fekk naa Zakariya moom it li ñuy wax ci Ibrahim lañuy wax ab yonent la doomu yonent la sëtu yonent la lu mu jurit yonent lay doon yàlla gërëm ko ci alquran ba mu demee ba yëg la mu yëg ñu ni wa zakariya id naada rabbahu rabbi rabbi la tadarni fardan wa anta xayrul yàlla bu ma bàyyi mukk am njaboot bul seetaan loolu ñaan ko yàlla ci anam yu ne waxe ko ko ba ca wër ba ca ba ca ba ca ba ca gën a wér ca suratul kahfi yàlla nee na nee na nee na kaafha yaa ayn saad dikru rahmati rabbika abdahu zakariya id naada rabbahu nidaan xafiya qala rabbi inni wahana alazmu minni wastaala rasu shayba wastaala rasu shayba walam akun rabbi biduayka walam akun biduayka rabbi shaqiya wa inni xiftu almawaliya min min warai wa kanat imraati aaqira lu tax muy wax loolu yépp hab li hab li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya sadaqa allahu alazim maam Zakaria nee na yàlla ba ma la xamee ba léegi masumaa dañ di la ñaan ñaan naa ba sama yax yi fëlëx na màgget na sama kaw tàkk naag ba jaaw weex tal te du benn seul instant de ma vie bu masa yokkatan ding ma may li ma lay ñaan wala makum wala makum bi du'aika rabbi maa ngi ragal ndono li sama ginnaaw maa ngi ragal loxo yi ma ko war a teg amaguma ko sama soxna dafa dafa jaasir mënta jur hab lii hab lii min ladunka waliyan yàlla may ma njaboot may ma nit ku baax may ma wali mu doon ma donn aali yaaqub yàlla te nga def ko muy muy njaboot bu bu mu fa yow mais kooku dafa profond lu sore la lu xóot la dinañ ci dellu si dellu si sur la qualité nga continue ci yeneen i aya yàlla ba muy waxante ba muy ba muy ba muy mu ñuy fàttali ñun jullit yi digganteel eh, teraanga ba mu defal sayyiduna daawud alayhi mooy bàyyi suleymaan wa wahabna li daawuda suleymaan ni'mal abd innahu awwaab yàlla neen maa ko xéewal maa ko wërsëgal maa ko sarax suleymaan ni'ma baax na al abd innahu moom suleymaan awwaabun kuy dellu ci boromam communauté jullit yi yàlla tënk na ca ba mu leen di melal nee na alladina yaquluuna rabbana hab lana min azwajina wa durriyatina qurrata ayunin wa jaalna lilmuttaqina imama gaa yi nga xam dañ naan bur yàlla yal nag ñu wërsëgal ci suñuy soxna ak ci suñuy njaboot lool buñ ko xoolee muus mu nekk su luy seral suñu bët kon diine di leen yàlla defal defal taxul ñuy wax pas-pasu diine ngëm tawxid ba ne ca ñoom taxul ñuy wax waaye lañuy ñuy sant bëgg sant yàlla ak di ko bëggee mooy seen njaboot ne nekk ñuy seral seen xol kon njaboot am na solo boo ko toppee du jeex ci yeneen ayat boo wàccee ba ci suuf seen maam Seydi El Hadji Malick az-Zahid al-Abid El Hadji Malick ak yàlla kenn maam maam maam maam Ousmane si maam démb bun na yàlla seen maam Seydil Hadj Malick ma ni kenn doxul digganteem ak yàlla ci suñu considération terrienne yi ñu am amul njaboot bu ko mën a préoccupé ba fàtteloo ko boroomam seen maam Mouhamadul Mansour radiyallahu anhu moo ñu ko jàngal ndax lu jóge ci moom ca Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu jóge marché bi dafa mel ne tënk masale ba ñu dellu si ndaw sa suñu maam ja mbokk Seydi Mouhamadul Mansour al akbar la topp ko ci wëlis wëlis alaaji Mansour may ma wëlis may ma wëlis mu ni ko dégg naa la ndax moom kilifa la woon benn nga koy wax benn yoon la lay tontu nga bàyyi ko sa xanaa dégg na la ba yàgg lool yàlla dogal ñu tasewaat ca jolof naka la sëñ bi di wàcc ci oto bi rekk soxna sa taxaw ni ko ñaanoon naa la wólis bu doon um mbaa asietu mbaa nafisatu kada wa kada sa maam ni ko kaay ma xamal la lu barew gis nga man man suur man suur alaaji maalik yàlla ah, ah c'est su ko defee dellu sant yàlla bu baax ñan yàlla liñ jóge tam yal nañu ko yàlla nangul julli ci waxtu ci ni ko yàlla bëgge téere yi wax nañu lu nekk ba mu des wax luy fay luy payam yal yàlla boole nangul ma yemoon ci misaal bu may jël ci maam Seydi El Hadj Malick ànd ak la muy bëgg yàlla te te yemalewu ko ak lenn doxalewul kenn ci digganteem ak boroomam xatta njabootam seen maam mi nga xam ni kenn du laam-laamee ak nekkam di jaamu yàlla bu mat sëkk ba am ñuy njort ni annahu annahu annahu waliyun ba mu yëgee la mu yëg bokk na ca la mu ñaan habli wax ak boroomam habli banina dhukuran salihiina bihim taqarru ayni wa ma yakfi min almaali هب لي عليهم بعلم نافعا وتقا وكلما أرتجي يا علم الحال Alaaji Malik waxanteeg yàlla doxalewul kenn ci digganteem ak boromam buur yàlla nag ma wërsëgal njaboot ba nii na ñu ni yu mel nan mu ne zukuran ay góor waxula jigéen de ay góor ndax ñu mën a jur ñeneen ñuy jurante ba di tasa biir aljanna saalixiina ñuy ay nit ñu yiw ñoo xam ni sama sama sama bët dina sedd ci bu ma leen xoolee saalixiina ñuy yiw bihim taqarru ayni waaw loo xam ni dina sedd sama xol ca nañu mel waaye bul yem ci njaboot gi wa maa yegg fii min al mali ak teranga bu ma yore njaboot gi ak di leen ko waajale hab lii may ma leen waaye bi ilmin ànd ak xam-xam buy jariñ fay bu naafirañ buy jariñ fa yàlla wa tuqan ak yàlla ragal yàlla ni ma lay ñaane loolu laa lay ñaane wa kullama ak lépp loo xam ne arte jii man Seydil Hadj Malick maa ngi koy yaakaar sama digganteek yow yaa alimal xaali yow mi nga xam ni benn mbir réeru la ma ni kon bu ñu jógee ci alqu bu ñu duggee ci alquran gis ni yonent ñaane ak garab bi leen yàlla yëkkateeg teranga bi mu leen defal génn ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy yaakaar jël ci modèle muy Seydil Hadji malik kenn ku nekk en un moment exact de ta ñaan nga yàlla mu may la njaboot li Moustapha wax léegi nag njabootu qualité mais même bu dul bu dul woon ayatul quran ak ahadis yoo xam ne mën nañ ci sukkandiku di layal suñu position en tant que école dana jaadu bu ñuy wax ci waxi tanzimu nasl bu fekkee noonu lañ koy tuddee tahdidi nasl encore ko pour ñu du lenn lu dul jeu de mots dana jaadu ñu fexee xool nasaraan yi nga xam ni ñoo fi indi xalaat bi xalaat bi ci ñoom la jóge waa ñoom nu ñu def ak tanzimu nasl ma tontu foofu tuuti Moussa nee na bu ñu wax ni Malthus moo ko fi indi en fait Malthus indiwu ko fi bu tuddee al azl kunna naazil wal quran yanzil kon kooku indiw fi indiw fi te loolu méthode de contraception la ni mu ko waxee ak yeneen ay fa tabarakallah ahsanul xaaliqiin layal na lislaam ci ni dàqantewul ak contraception waaye nag Malthus moo ko systématisé Malthus moom moo xool la courbe de ressources mu xool la courbe démographique mu gis ni nit ñi ni ñuy sëqee nee na ci xelam ak ci njortam koom wi demewul noonu nañu bàyyi xel nit ñi moom moo ko systématiser moom moo ko progression arithmétique une progr contre une progression d'ordre géométrique mais exponentielle ce qui est vrai moom moo ko officialiser moom Malthus ba tax ñu ko koy askanal kon dafay jaadu ma ni te mu tam wi mu nas mënuñu ko traité mais fekkeen delluwul ci tubaab bi parce que ala kulli xalin mu neex mu naqari الفكرة فكرة تحديد أو تنظيم النسل والتشجيع منه هي فكرة رأسمالية إن فكرة تحديد تحديد النسل أو تنظيم النسل والتشجيع منه فكرة رأسمالية idée capitale capitalistique la nasaraan yi kon ñoom dañuy seet nan lañ ñu def ak tandimu nas waaye si di encore ma la koy ñaan rek ndax man ni ma approche bi ma privilégié ci débat bi moo tax foog ma xaw a guddal dama dellu ginnaaw tuuti ci li ñu yër ci seeni téere ñoom insha allahu taala du fi wax dara lu dul dinaa leen jox ñi ci jàng arab ñi ci jàng nasaraan ay delluwaay yoo xam ne bu ngeen fa delloo fekk ni la may wax sosuma ko maa ko fekk ci seeni téere bu ngeen fa demee fekk fa lu ëpp la ma fa fekk ci njàlbeen nasaraan yi seeni réew naka jekk feebaru dénatalité la dénatalité moo leen dal dénatalité mooy mooy nuqsaanul mawalid tëlee jur tëlee jur moo ma naka jekk moo masa dal nasaraan yi njur gu du deñ di di di faagaagal ak di wàññi ci seeni maam la dooroween ila yawmina hada te lay muy la dénatalité boo delloo seen téere yi moom moo faagaagaloon mais ñu ñuy wax la Grèce antique al yunaan al qadim te lay jur gannaaw loolu mu taxu dem ci réew mu ñuy wax empire romain te ñii ñaari réew yi ñoo seq tubaab yi képp ku dellu ci seeni i téere ma ne ma la wax di ko fa fekk ba mun ci am lu gën a yaatu fi ñu toll nii feebar bi juddoo ci télé jur mooy yot réewi tubaab yi jamono jii nara a jur ci ñoom nag jeexuk xeet xeetu tubaab ndonte ñoom li ñuy wax taxdiid aw tanzimi nasl mais safaan ba la ñuy jëfandikoo ci seen réew ay politique nataliste lañu lañu lañu saxal fi mu toll ci seen réew dañ ci amul pexe ay at a ñi ngi def politique nataliste maanaam ku am lu ëpp ñaari doom ñu teg la sanction ku am benn doom ñu encouragé la may la sungufu meew may la xaalis ma jox la kër yombal la leneen ak leneen pour ñu mën a saq waaye mu te ticc mënuñoo jur ñoom ma ni politique nataliste actuellement ñii fi may waxee ñoom politique nataliste la ñuy prôné ci seeni réew du lenn lu may yushajjo ala ma mawalid la ko la ko jur mooy njumte lu rëy lu leen dal démb la tey soog a ñëw mooy ni ca njàlbeen dañoo waajalul woon ñoom tubaab yi seeni jigéen ca na mu ware ci baax ci taxawaay taxawaay ni jigéen war a taxawe aadatan niñ ko miine ñu taamu ci seeni jigéen tarbiya boo xam ni daf leen di niroole ak seeni góor ca nañuy waxe ca nañuy solo ca nañu nañuy xalaate ma ni ca ñuy dunde ci mbooleem pàcci dund gi tubaab bu jigéen ak tubaab bu góor daana karaw karaw ak euh, lenn moo leen xaw a wuute ba loolu saxee ba sax mu jur ca jigéenu tubaab ya sibeel gu ñu am sibeel ci njureel ak lépp loo xam ne dafa aju ci njureel ndax ca lañ leen yar seeni ndey ak seeni maam ca lañuy judd mu mu jur ci ñoom sibeelu njureel ak lu ca aju loolu mooy nampal lu ca aju mooy lu mel boot ak lépp lu ñu miin ci li ñuy wax al umuma la maternité te li yées jigéen mooy mën jur ba pare bañ li yées ci jigéen mooy mu mën a jur ba pare bañ a jur tubaab yi réere woon nañu mbir ni jigéen fa mu ëppee kàttan kàttanu xel kàttanu kàttanu yaram fa dara je gën a beese te mooy fa mu ndawe mais foofee lañu taamoo ci moom sëy ngir mu mën a jur njureel boo xam ni dafay mucc ci ayib ma ni jigéen fa mu ëppee kàttan fa daratam gën a ndawee kàttanu xel ak kàttanu yaram foofe lañu taamoo ci moom mu war a sëy ngir mën a jur njureel gu mucc ci ayib macha allah bokk na ci njariñ li bu ko defee mais dafay wéel xeetam moom ndaw sa ak xeet wu mu mën a doon yàlla moom moo ñaale ca seeni jigéen ca mbindum jigéen mu war a jur ci bu tolloo ci jur moo tax ñu war a jàpp ni il n'y pas plus grave erreur ci jigéen mu renoncer à la maternité développement psychologique am mënul nekk lu dafa ànd ak maternité bépp xeet bu sàmmantewul ak loi bi bépp xeet bu sàmmantewul ak charte bi ma ni ci jeex la jëm ci fay la jëm bila shakkin ngir fexe saafara loolee te mooy feebar bi leen dal te mooy la dénatalité nuqsaanul mawalid bokk na tey ni ma ko mën a misaale ndax xale yi xam ko li waral maye kayit gi ngeen di dégg taaratan fa taaratan ci jamono yi ci dëkku tubaab yi maye kayit gi du mbaax du générosité ñoom dañuy anticiper di calculer di gëstu di càmbar xam nañ ni doole bu war a taxawee seen réew amatul ci seeni ndaw seeni ndaw matewuñu ko de temps en temps ñu maye ay kayit bëgguñu ko ñemewuñu ko waaye amuñu pexe xalaas réewu tubaab yi fi indi xalaatu tahdidu nasl aw tandimu nasl ma ni ci manu teg yàlla subhanahu wa taala egg nañu ci man noonu lay duggee ci principe bu planification familiale fu mu ñu mëne jëmee waxuma ni fa lañ jëm mais en tout cas mën nañu fa yóbbu te buñ fa demee duñu dellooti suñu bopp ma ni réewu tubaab yi ci maanu teg yàlla waaye ci waxyu seytaan wa atbaa'ihi ci waxyu bu leen seytaane waxyu ak toppi seytaan yi te ñenn duñu toppi seytaan lu dul ñu ñu wax tey les technoprophètes c'est des médecins yu xereñ c'est des as de l'informatique c'est des généticiens c'est des futuristes c'est des philosophes c'est des grands penseurs li leen dajaleen ñoom ñépp mooy gaay yi nga xam ne alladina la yuminuuna billahi wa bi taqdirihi soxlawuñoo gëm yàlla gëmuñu ndogalu yàlla seen xam-xam doy na leen on les appelle actuellement des technoprophètes ñoom ñooy prophète wu seytaane mu mag mi ñaa yeneen tam egg nañu fi mu toll nii mais ci li ñuy wax médecins yi xam nañ ko spécialiste santé yi xam nañ ko la GPA la, la gestation pour autrui ëmbal keneen ëmbal keneen denc si Moussa nee na dencal nit doomam la gestation pour autrui la GPA loolu ñu wax la gestation délocalisée mon neveu elle est délocalisée gannaaw ba ñu ba ñu ba ñu xaralee ci mbaaxu yàlla ñoom tubaab yi à partir de la contraception mooy contraception planification familiale ca la bokk ak lépp lu ko niru luy tere juum mooy la contraception ba ñu eggale ci xereñ ba tàqale diggante li ñuy wax sexualité ak conception maanaam bànneexu sëy ak ëmb bu jógee ci tëraayu bànneexu sëy ñoom ci seen xereñ tàqale la ñoo ñaar maanaam léegi nit mën na sëy te du ëmb mën na ëmb te du sëy wala déet tubaab yi ci seen xereñ fexe nañ ba léegi nit dafay mën na sëy te du ëmb dëkk di sëy te du ëmb nit mën na ëmb te du sëy ñaar yëpp léegi si nañ ci gannaaw ba ñu eggee ci loolu léegi ñii def nañu beneen jéego egg nañu ci gestation délocalisée bi maanaam jël li may mën a wax neni jigéen neni neni jigéen mooy ovocyte docteur bi nag mu tudd ovule wala ovocyte jël neni jigéen lënkale ko ak la ca man yu góor te mooy spermatozoïde bu ñu demee ba ba ba loolee jàppaloo docteur bi ma juumee nga wax ma ko moom la ñuy tuddee embryon wala de jël nenu jigéen génne nen bi lënkale ko ak la ca man yu góor war a jaxasoog nen ba ngir dund mën cee sasoo ñu boole ko bu jàppaloo moo tudd embryon dugal ko ci ruxumu beneen jigéen jël nenu jigéen bii mu tudd faat ñu boole ko man lay génn la la la la ca man yu góor muy spermatozoïde jël ko dugal ko ci ruxumu ci ruxumu uh, roqiya wala walla wala wala wala daba gone ga cay sasoo ga cay ga cay sosoo ga cay juddu juróomi way jur la yaam mas ngeen dégg lool la cay juddoo juróomi way jur juróomi parent lay am bu ngeen ma dégloo ma leeral leen ko dafa xaw a compliqué waaye neex naa dégg alhamdulilahi rabbil alamin nenu jigéen ba ñu lënkalee ak ak la bàyyikoo ca mën yu góor ba jigéen boobee ak góor googee ñooy ñaari way juru gone ga xaqiqatan d'accord ñoom lañuy ñuy wax des parents génétiques xale bi ci ñoom xaqiqatan en réalité xale bi ci la sosoo dafa tollook nag ndaw sa joxe nenam ak waa ja joxe manniyum ñoom dañuy jaay rek topp taw ñu kuy jënd ku ku ku ko jënd ak jëndul bëgguñu koo xam soxlawuñu ko ñoom daal dangay jënd dañuy jaay ci internet lañ koy jaay ñoom soxlawuñu xam ku jënd ak ku jëndul li ñu soxla rek mooy daal dangay ngay jënd dañ lay jaay yeneen ñaar kon ñaari wayjur ngo yeneen ñaari wayjur ya si topp mooy ñaari wayjur yi tëlee jur ñaari wayjur yi nga xam ni dañu tëlee am doom la ko tële dinañ ci ñëw léegi ñu dem ci internet daal di commandé ovule daal di commandé spermatozoïde ñu jaxaseel leen ko mu war a joxe embryon ñooñu ñooy les parents nourriciers lu war ci doom ñoom ñoo koy def plus ca sang ba ca sang ba ca dund ga ca lekk ga ca yar ga ñee jiitu ñooy les parents génétiques ñii ñaar jënde ko ci internet ñooy les parents nourriciers Moustapha mille problème mais ñaari parents yooyu mais mën nañu nekk ñaari góor mën nañu nekk ñaari jigéen mais mën nañu nekk jigéen góor niñ ko miné ñaari góor mooy borom ñaari tur parce que du yàgg-yàgg bu ñu am doom góor du ëmb te bëgg nañu doom ngir yar ko ca la ñu ne bu magee wéyal la ñu ne yoon wala déet par ñu dem jënd ovule wala ovocyte dem jënd sperme ñu daj ñu jaxasee leen mën na nekk ñaari jigéen ñoom it boroom ñaari tur lañu ñaari jigéen yoo xam ne ñoom amuñu aajo ci góor ñoom it ñu dem jënd ne ñëpp jënde ñu jaxasee leen mu jur doom ñoom ñaar yu jigéen ñooy parents ya wa alal mawludi walaay dafa walaay lay leeri si Malick walaay yeneen ñaari parents ngi noonu ke leen juróomeel ke mooy ka nga xam ni moom moo ëmb xale ba kooku c'est une pauvre villageoise indienne walla bengali ma nga réew yu sore ya moom moo ëmb gone gi moom lañuy wax la mère porteuse kon xale bi am na juróomi parent eh, est-ce que na lii lépp nag mi ngi jàppandee simplement ci amu carte bancaire carte bancaire bu ñuy wax visa visa gold wala nga am mastercard boo ko amee rek mu yomb la kon nga dégg ni maanaam njaay ak njëndum bébé lañu la ñu tëral ci comme ci système bi ànd ak nag xerañu doctor yi docteur na ma baal waaye ñooñu ay les technoprophètes ay docteurs yu xerañ lañu ñoom paillette de sperme ovocyte acheté en ligne togg ko ba microbe du ci dugg virus du ci dem bactérie du ko laal wayal ko ba du seey na ndox ñu expédier ko vite fait ci par avion mu dem Inde ñu roof ko ci ruxu mu jigéen ay jigéen yu dañuy luye seeni biir dañuy luye seeni boutique dañuy luye seeni biir di luye seeni boutique signé ak kañ ko seqal li fi leeg juróom-ñeenti weer bu sobee yàlla buñ la ko imbilee rek buñ la ko wasinalee yót la ko c'est ça la GPA c'est la gestion délocalisée Moustapha c'est clair maintenant ci lii la tubaab yi toll woon kon dafa mel ne weesu nañ ko ci lii la tubaab yi toll woon tey def nañu yeneen xeeti jéego ci lu leen seytaane wax yu jéego yu day wane ne li ñu wax ni léegi du dara dugg nañu ci air bu ñuy wax air wu benn BE benn environnement bu bu bu dañ koy dañ koy woowee un univers artificiel déconnecté mais complètement alors de l'organisme maternel docteur yi loolee la ñu tuddee lectogenèse mooy bi xew daanaka moom it weesu nañ ko léegi luy loolu dootuñu soxla luye biiru jigéen ak yi butitam soreetul daanaka ñëw na jamono ju yi njuréel ak njariñ la mu am ca kay jur ak ka muy jur parce que metit ba njariñ bu bare la àndal mettitu njuréel madami tubaab yi dootuñu ko xam ndax léegi ay machine ay machine ñoo leen di wutu ci ci ci ëmb gi essayé nañu ko essayé nañu ko ci nit jël ovule bi jël spermatozoïde bi boole leen dugal leen ci bocal di leen sooxat ci liquide bi ñuy wax liquide liquide bi ñuy jigéen ñi di wax topp liquide amniotique boole leen am na fa juróom-benni fan yëf yi di dund jigéen bi ko def Hélène Hélène Ng Ching-lui la tudd xam naa ni d'origine chinoise la wala japonaise Hélène Ng Ching-lui lu ci mënti am ala kulli xaalis elle est chercheuse Medical College de l'université Cornell à New York réussir ñu ko jël embryon humain dugal ko ci artifice ci ci utérus artificiel ñu mbaraa ko ndax tubaab bi ba léegi ñemeeguñu boobu ñame ñu mbaraa ko mu tiit li mu doon def mu bàyyi ko pour des raisons des raisons éthico-juridiques ñu leen jarul yooxu dama doon essayer rek pour xool nu mu demee léegi bàyyi naa ko maa ngi dem ci janax yi la mu jéem ca nit ñu mbaraa ko def na ko ca janax ba janax ja nekk janax ma ni jël na ni jigéen lënkale ko ak ak la ca man yu góor yaani almachid muy ay gamèt moom la ko médecin ay gamèt dugal ko ci machine et rendez-vous dans neuf mois pour la livraison du bébé bien chaud et dans de très bonnes conditions du pat du lompoñ du lafañ du prématuré boo bëggee xale yi bu ngeen bëggee xam li ma leen wax mu yitteel leen da ngay dem ci Libération le journal le journal français Libération du 29 mars 2005. yéen ñi nga xam ni miin ngeen internet yéen sama jarbaat bi website bi Moustapha utérus artificiel contre la naissance sacrificielle sacrificielle utérus tiré artificiel tiré contre tiré la tiré naissance tiré sacrificielle point fr. maanaam naagu naagu ngir xereñ gu ñu xereñ ak xarale gu yàlla ci mbaaxam may na leen ko mais yóbbu na tey man yi xeetu tubaab ci naagu bu mais dañuy def lu ñuy tuddee maanaam une cuisine procréative tabixul wilaadati ni ngay boole yi ngay boole ba ceebu jën ñu tudde ko ceebu jën nit mën ci jariñu noonu la ñuy boolee yi ñuy boolee ba nit sosu dañuy togg nit léegi une cuisine procréative yàpp yeeg sidit yi ma ni jëmmi doomu aadama ak i cëram mooy débat débat bu ma nga juddoo ca la ñuy wax le forum européen de bioéthique le forum européen de bioéthique ma nga amee woon le 28 janvier 2013 ca dëkk bu ñuy wax Strasbourg bésu altine la woon débat bu mi ngi aju ci thématique du corps humain en pièces détachées. Thématique, deux points. Le corps humain en pièces détachées. débat bu dafay poser problème mu ak di xalaat yi fii statut statut partie doomu aadama est-ce que nopp nit ki mënuñu ko jël jëfandiku si mais sans ñuy considérer nit ki lu mu ko gisee lu mu ko gisewul est-ce que xol bi mënuñu ko génne manipuler ko nu ñu neexee mais sans considération ci jëmmi nit ki nit en fait est ce que du xelu kese yeneen jëm yi ay pièces la yoo xam ne mën nañ ko changer mën nañ ko yokk mën nañ ko wàññi comme ni nga koy defee ci oto débat bi c' était le 28 janvier 2013 le forum européen de bioéthique à Strasbourg mu war ñoo interpeller ñun taalibe yi ndax suñu diine suñu diine wax na ci démb tey soog a ñëw sëriñ bee ñu ko jàngal inna jisma al insaan muharramun baada mawtihi ka ixtiraamihi fi xayaatihi inna xurmat al insaan baaqiyatun baada mawtihi kama kaanat fi xayaatihi inna jasada al insaan kullahu maa ruuxihi wa caqlihi wa qalbihi wa acdaa'ihi wa ma yataallaq biha min mawaahibi llahi taala wa awaarihi almustawdia yumatti'una biha ila ajalin ma'dud wa yaqbiduha li waqtin ma'lum yaramu doomu aadama dañ ko war a xormal li tubaab di wax dignité humaine dañ ko war a conserver dans son intégralité bu deewee niñ ko doon conserver bu dundee xorma dignité bi doomu aadama yàlla def ci moom dafay sax gannaaw deewam comme bu nekkoon kuy dund néew bu ko doon sang juum dagg wey mbaa karaw gi wadd mbaa bëñ bi foq charia nee nañ ko boole ak néew ba suul jëmmi doomu aadama yaramam ànd ak nopp ya ànd ak ruux ba ànd ak xel ma ànd ak xol ba ànd ak cër yi ànd ak lépp ba ci sentiment ya ak émotion yi loolu maye yàlla la ndénkaane yàlla la boo xam ëllëg da koy laajtewaat yàlla moo ñu ko xéewale ñu war cee bànneexu war cee xéewlu bés a ngi ñëw moom la ñuy tuddee dee bu jote yàlla nangu ko alors ce don de Dieu ce don de Dieu mayu yàlla boobu cette merveilleuse merveilleuse créature yàlla wax fi xaqihi laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim ak yeneen aayaat yu ko nuru yàlla magnifié mbind bi mu bind doomu aadama ak teranga bi mu ko defal ak place de choix bi mu ko teg waa forum européen de bioéthique seen naataango ya ca Amérique am na lenn ci ñoom ki ñu wax Marvin Minsky ca la bokk Marvin Minsky, merci beaucoup, c'est le responsable di programme sur l'intelligence artificielle au MIT, la Massachusetts Institute of Technology. Marvin Minsky. intelligence artificielle mooy fexe ba robot yi machine yi di nit nit lu fañ ca toll moom la ñu confier programme bi ku xereñ la nag moom loolee yàlla teral def ko muy gën ji Minsikin nee na parce que mbay nga baal ma nga baal ma citation bi ndax euh, ma maqam bi moo ko waral loolee yàlla ter yàlla def ko muy gën ji am lu mu doxanteeg diggante moom Minsky nee na it's it's nothing else but a bloody mess of organic matters c'est de matière organique Minsky nit sën la sën mooy fa ñuy dajale mbalitu dëkk bi yëpp sën sën yi yàpp ak yuq ak yóor ak xol ak deret ak sidit ak yàq sën lu la neex sànni fa lu la neex jël jëfandikoo boo paree sànniwaat fa a bloody mess of organic matters un sacré foutoir de matière organique tuxyaanan nee na nit du dara lu dul sën nga gis ni kon technoprophète yi ma la doon wax léegi te ñooy at baax seytaan toppi seytaan di yonenti seytaan yi di ay médecin di ay généticien di ay informaticien di ay biochimiste di ay philosophe di ay futuriste nit ñu xereñ nee nañu àdduna bi lu ne dañ koy bricoler sànq dégg naa ñu wax ni fii war ñu bricoler charia ñoom ne nañu lu ne dañ koy bricoler gisuñu comme lu ne dañ koy bricoler muy jag gisuñu lu tax ba mais waruñoo bricoler waxuma nit mais dundu doomu aadama ci boppam dañ ko war a bricoler ma ni gis-gis bu mel nii wala bu lay yóbbu ci lu mel nii bokkul ci li ñu min ci nit ku ñuul rawatina jullit mbokk yi li yées ci nit mooy di bàyyi xel koo xam ni bàyyiwula xel tubaab yi masul am benn yoon bu ñu bàyyi xel tubaab yi dañuy jàppee kala shay'a pour des moins que rien docteur dañu war a bàyyi nañu bàyyi di singer tubaab yi nañ leen bàyyi ak seeni xalaat ak seeni man-man nañu bàyyi di golo gololu ni golo di toppandoo nit noonu la ñuy toppandoo tubaab yi xalaas bu ñu leen topp ci tahdiidu nasl bu ñu leen ci topp ndax ñoom ca la ñu doore woon tey gis nañu fi ñu egg ci lii ma leen wax te am na yeneen yu ma ci waxul actuellement cinq millions d'individus juddu nañu ci àdduna bi ñu ngi dox kenn ëmb leen ci ay bokkoo lañu ñu génne on les appelle les fives ils sont cinq millions boroom ñaari turi nag ñoo ci gën a sawar ci anam boobu parce que noonu lañu amee ñu leen remplacer ëllëg ils sont cinq millions di dox ci kaw suuf jigéen ëmb leen góor jurul leen ñun am nañu suñu ay propre référence gisuma lu tax lan lan moo tax nasaraan yi mais mais lan lañ ñu gënee lan lañ ñu ëppale ba lahum an yaqulu wa alayna an narda lu ñu indi rek ñu jël gis ci suñu bopp wala bañ ci gis suñu bopp xam ni mu demee wala bañ xam ni mu demee ko tubaab yee ko indi rek alors ñun nañ jël kut ko kut nag dañ fexe ba dawal ko comme bi petit lait lu ñu tubaab yi ëppale ba lahum an yaqulu wa alayna an narda bu ñu doon wax man contre ma tahdid aw tas tandim dama ci xamul dara sax ba koy contre wala di ko far xaw ma ci dara mais dama ni buy am mais xalaat bi na jóge ci ñun na nekk suñu xalaatu bopp mais c'est avalisé d'en haut tubaab yi xale yi maa leen ko wax billaahi wa ñaar ñett ñetti nit ñooy toog entre deux gorgées de whisky ñu bind lu leen neex seen gouvernement avalisé ko ñun nañ ko yóbbul africain yi te lu ñu mën a wax fii ñoom la ñu door day wéy ci mbaaxu yàlla ak ci bada al islaam garibun wa sa yaud kama badaa li fi des mooy nu golo xam boote doomam moo ci des de l'heure n'est plus à la à la protection de la umma l'heure est au choix de ceux qui passeront l'heure n'est plus mënatuñu sàmm njaboot gi tubaab yi ëpp nañu doole ba li fi des kenn ku ne yaay mën a xool sa diggante ak sa borom ñun laqad qulna rabbuna allah idan fal nastaqim ala kitabihi wa ala minhaji amrihi wa ala salihati ibadatihi ñun ñoo ko wax rabbuna allah yàlla mooy suñu borom moo tax li ñuy tëje xam nañ ni gars yi ñu ngi bind wax yu mahdud laaj amanzala allahu subhanahu wa taala diinan naqisan fa staana bihim ila itmaamihi am kaanu shurakaa lahu am anzala allahu subhanahu diinan diinan taaman fa qasara rasul sallallahu alayhi wa sallam an tabligihi wa adaihi ndax yàlla dafa wàcce diine ju matadi ba tubaab yi di ko ko mottalil wala ba muy sos diineem ak di ko sàkk tubaab yi ko doon jàppale am yàlla dafa wàcce diine ju mat sëkk waaye salaa salaam moo jotalul léegi la ko sëriñ bi ubbee waxam nee na sang bi laaj na njab mbooloo ma njaboot ga xeet wa hal ba kon na am ya rasulallah ballagta mu ne yàlla seddal dañuy yemale foofu contribution boobu parce que doon nañu bëgg indi ay aspect économique li ñuy wax ci la rareté de ressources ni misaaxatul ardi mahduda suuf si am na fu mu dooree am na fu mu yem comme am na lu mu àttan njuréeg li bu ëppee bu yàggee dinañ dem ba tos ñu am lu ñu lekk mais mais ñun mais ñun mais ñun loolu suñu yoon new ci li may tontu ci loolu xale ba xale ba dafa dugg ca waañ wa xale ba doomu tubaab la bàyyi tax ba rakku papaam papa ji dafa dee ñu jox ko ko mu yar ko mu mottali tarbiyaam xale ba xiif na dugg ca waañ wa baay bu ndaw bi dégg ko mu yëngatu ca waañ wa mu ni ko diw qu'est-ce que tu fais mu ko je me nourris mu ni ko attends ne te fous pas de moi ton brave père il n'aimait pas qu'on se fichât de lui euh, dis-moi plutôt que tu manges c'est moi qui te looy def mun ko damay dund mun ko bul ma fonton sa papa bëgguloon ko ko yépp ne ma dangay lekk ndax man mii maa lay dundal hakada bayna rabbi l usra wal usra hakada baynana wa bayna xaaliqina wa raziqina alladi yakfulu risqana ñun lekk rek lañ fi nekke yàlla moo ñuy dundal lekk rek lañ fi nekke yàlla mooy ki ñuy dundal dund ak lekk bokkuñu waaw su ko defee loolu ay contribution la woon xam leen tam position daara ji la du suñu xalaat xalaati daara ji la on est perméable nag ci am nañu ouverture ci ay ay afkaar infitaaxul fikri ci ay xalaat yu bees ci ay anam yu bees ci ay xallul masail bañu ñu ko mais lépp dañu bëgg ñu teg ko ala daw il kitaab yi wa mu gongi ko suñu téere gongi ko suñu sunna waaye mu jóge suñu ay maam bañ a jóge ci xalaat yi tubaab quand on parle de congrès ou de ou de colloque de Rabat mais way tubaab yéen dem formé leen ba pare Moussa ah je suis vraiment désolé ñoo dem formé leen ba pare après soog leen congrès à Rabat noonu la ak seen i kaala même vos grands professeurs di génne ay asara ay fi ngeen xam bañ pare Sorbonne lañ dem ñu yeesal leen def leen lavage de cerveau tous étant qu'ils sont bu fekkee dañuy wax ci ressources yi ma tëje ko bu ñu tàccu bu ñu tàccu fii du place tàccu bu ñu wax ci ressources yi ma tëje ko muy benn exemple parmi une multitude moo ne moo ne moo ne Union européenne ñu ak waa Brésil ak ñeneen ñu leen niru miin nañu ci ñoom chaque fois bu amee surplus yi lu mel na maïs mais ñu lakk ko ñu lakk ko mais dañuy bañ prix daanu ñu lakk ko la ñuy def bërki boo boo xamul loolu bëriki dém moo njaay yàggul trois millions de litres de lait meew lu ñu xëpp ci mbedd mi dañoo meroon parce que prix bi leen seen gu ay français kese nag dañoo meroon ndax prix bi leen seen gouvernement proposé neexu leen ñu jël meew ma trois millions de litres ñu ñu ñu sotti ko ci mbedd mi mais kon ñooñu du ñoo wax xiif te xiif bu amee xiif bu amee tubaab yee ko fi indi bu fekkoon ni li yàlla gàll ci loosu wuy oom la yi sàmmante ñoo ko moom xiif du fi am ndax inna allaha farada aq fi amwalil agniyai aqwatal fuqara wa ma jaa faqirun illa bima mutia bihi yaani ka am ka oomle la mu lekk ba dis des bala ca des mu di ko fowe loolee wàllu faqir la woon mbewte moo ko dugal ci yàq ko ñu ngi baalu xaq bu baax wane ni parewaat nañ pour waxtaan ak yéen ci lii maa ngi dellu jégaluwaat si bi encore parce que xaw ma ni woon ni contribution dix la ala kulli xaal man lu mel nii mënuma ko wax en dix minutes euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu sama papa Serigne mbay mii toog yii ma wax ne naan du sama xalaat xalaatam la du xalaatam xalaatu daara ji comme la kon la ca moy la ca jubul ak la cay gat maa ngi koy jégalu la ca jub ci mbaaxu yàlla ñoom ñoo ñu ko jàngal asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh dañ ko tàmm kafakumullah cheikh moo gën ko tëj kafakumullah cheikh kontaan naa kontaan naa kontaan kontaan naa kontaan jërëjëf jërëjëf xel mooy fàttali ndax li ñu waxoon ci ñi jël di def contribution yi dañu waxoon deux fois dix maanaam juróomi fukk ñaari yoon muy ñaar foofu waaye comme waxtu bi dafa xat te ñuy yéex a tàmbali moo taxoon ñu ne dañuy jox fukki yi mu nekk seen waxtaan juróom yi di conclusion bi ñuy def boole ñaari question yi fi ñëw ñu tontuwaale ko ci juróomi waxtu bi moo tax xam naa ne ñuy boo xam ni dañu koy tàmbali ci xaali Moussa bu tàmbalee jox ma Ousmane ndax ñoom ñoo fi amal ay question su paree ñu jox nga xam ni ñoom la ñu programmé woon ci seen jox sëriñ wasalaamu ala rasulillah eh, kaddu yi kaddu cant lay doon rek ndax ci daara la ñu nekk te itam wax naa ko ci tàmbali bi suñu ëttu maam la ñëw donc suñu sëriñ lañu fekk si daanaka jël bind la woon rek ndax eh, boobu ak léegi ñu ngi jël not ndax yaakaar naa moom sax boo ko déggul dangay def da nga yaakaar dafa def xaarijul mawdu fekk ci biir la nag ndax mbir mi moo bari lu mu laawaale am itam ay mbir yoo xam ne foog ñu sóor ko ci biir waaye nag li mën a am mooy am na wax bu gàtt bu sëriñ bi wax sànq ci tàmbaleem ne mukallaf bi nga xam ne jullit la lépp lu muy def war na ko mën a teg ci ala misaani shariati ni ñu ko suñu sëriñ jàngalee xamaa waafaqa ngeen jëfe su wuutee ngeen bàyyi loolu lañu ñu borom tariqa bi sax wax kon principe boobu kenn mënu ci génne mënuñu ci génne moo tax ñun defe naa waroo amul ci waxtaan wi ndax bu dee principe bi nga xam ne lim na ko sànq mu jëm ci espacement des naissances bu ñu ko tënkee bu dee asbaab yi asbaab saxiya la yaakaar naa kenn mënu ko wedd ba ci taxdiit sax ndax yaakaar naa foofu dañuy indi qaida bi wax inna darurat tubiha al mahdurat jigéen ji kat bu ëmbaatee day loru bu ñu ko tënkalee ëmbam foofu day nekk waajib ndax itam sàmm nit yaakaar naa sàmm bakkan ci waajibaat yu mag yi la bokk bu dee tanzim bi itam yaakaar naa euh, werante amu ci ndax nampal ñaari at bi kenn dëkkaatu ci te kii na di moo consent jàpp naa ne kon il est avec nous sur su sur sujet parce que ñun génn ñu li alquran jàngale muy durée nampal bu deux ans donc oma inquiétude ci waxtaan bi lenn rek la may xam nga comme këru daara la itam fële mu ne xamluhu wa fisaaluhu salaasuuna shahran salaasuuna shahran boo ko génne ci amee yi lu des six mois kon ñu doom ji di toog kooku nañ ko laaj gynécologue bi docteur imam sëriñ baa ngi bugg dugal ci wàllu embryologie te du ma sama domaine am naa docteur Chimère na ci am wàll su ko defee yooyu yëpp nag euh, yaakaar naa daara ji soxla na lu mel nii ndax du ñu imposer idée waaye idée bu ñëw dañ koy càmbar xool ni ko islam nangoo ñu jëfee ko noonu su ko islam ñu rejeté ko fi fi fi nga xam ne falaay xawee tooñ sama sëriñ tuuti mooy fii euh, la fi min jihatin iqtisadiya foofu itam damay bañ ñu yàccaaralloo islaam ci def tawakkul yàllaay wërsëgal kenn werante wu gémmiñ bu yàlla sàkk jox ko lu mu lekk kenn werante wu waaye nag am lu ci indi alayhi salaam wax naudu billahi min jahdi l bala waxla toog na ba mu yàgg mu ne yàlla nañu yàlla musal ci tar-tar boo xam ne xat-xat la boo xam ne day mujj nekk balaa bi ko saxaaba yi laajee wax bi dafa ne lima lene ci kasratul ayaali ma qillati shay waxin la nee na njaboot gi la wër te nga am responsabilité dundal leen su dee li nekk ci sa poche mënu leen dundal nee na yaa ngi ci tar-tar boobu yonent bi attiré na suñu attention ci ñu liggéey waaye itam attiré na suñu attention ci ñu bàyyi xel islaam nekkul diina yàccaaral ndax fam suufi manaakibiha wa kul min rizqihi su ko defee wàllu iqtisaad boobu dafa am ñu bari ñu ci wax te dañuy inciter à que ñu bañ a wékku ci yàlla wékku boo xam ne doo def effort ci sa dund sinon bu ñu nee rek tubaab moo ko fi indi dañuy naan kon jaratul ñuy def benn effort nañ toog rek dénk suñu bopp yàlla rek nu njaboot bi juddoo rek baax na su ko defee yàlla subhanahu wa taala moo leen di dundal ah tuumaal yàlla damay ragal mu am ci ndax yàlla jox nañu responsabilité ci ñu xool nu ñuy organiser suñu dund loolu farata la ci ñun ndax xel bi la jox ak kattan bi la yàlla jox yaakaar naa war na mën a intervenir ci waaye nag lépp ala misani shariati ndax yonent bi moo ko wax su ko waxul woon duñ ko bind duñ ko wax xam nga wax jooju Ali bu nga ko déggee ak Ali ibn Abi Talib daf ko tafsir dafa ne qillatul ayaali ahadul yasaarayn waaw ñetti minutes yi mat na ah, waaw doy na waar de <laughs> xam nga ñun nag dañ ñoo dañ ñoo waaw waa d'accord waaw incha allah waaw dañ ñoo tàggat ci débat suñu réseau bi ci lañuy liggéey ay at dañuy dem di waxtaan ak ay aima ba ci demb ndar lañuy ñu ay imam yu jógee Podor léegi lañu ñu ñu soulever sujet yu délicat waaye nag dañ koy débat nag waaw ci imposer kenn waaye itam ñu jàll charia dañuy bañ ñu jàng lii rek bàyyi la ca des su ko defee itam foofu euh, Ali ibn Abi wax na ci ne yonent bi li mu bëgg wax foofu mooy na ngeen gérer mbir yi te bañ koo bàyyi rek ci ne yàllaay dogal lépp lu yàlla dogal noonu la ndax am na benn sëriñ bu ñu ko laajoon ne ko gémmiñ bu yàlla xotti def ci lu mu lekk mu ne wala mu def ci suuf ndax am na ñu xiif di rey yooyu itam yu jar a bàyyi xel la islam nag diine bu ñuy toog rek di subir su ko defee itam yeneen question ñëw na ci istilaah bi ñëw ci planification familiale loolu comme docteur Chimère moo ko wax dëkk bu nekk ak sa politique am na ñoo xam ne tahdid la ñuy def loolu moo xew Chine ku am ñaar da ngay yem boo ci yokkee ñu tëj la Sénégal dañu ne tanzim espacement loolu nag buñ ko waxee ñun ñi liggéey ci mbir mi bind nañ ci ay argumentaire mais li ñu njëkk leeral mooy bu dee tahdid la moo di mais mu dee tanzim la mën nañ ci waxtaan ci charte mu nekk diggante ñaari way dencante te mu dëppoo ak li sharia wax maanaam ñu bàyyi xel wér-gu-yaramu jigéen waaw bi ci des defe naa dernière question bi mu laaj mooy lu tax lan la boroom xam-xam yi bind ba daganal tanzimu nas la sànq boo gisee ma indi radaa indi azlu indi alxiilu dafa fekk ay baat la yoo xam ne buñ ko càmbaree ba ci biir daf ñuy delloo ci wàllu néegu sëy ak façon bi ñu koy defee azlu góor gi wax na ko sànq sëñ bi sëñ malik nee na méthode de contraception la te saxaaba yaa ngi ko doon def te dañu ne rek ci jaam yi la woon tamit waaye nag man ñun gis nañu foo xam ne wax dëgg yàlla nee nañu ba ittifaaq amee diggante borom kër ak soxnaam te soxna si du jaam mu def nañ ko def gis nañ ko. tey sëñ man baa gën a moom tontu sa laaj waaye. ndax aslu. xam nga am nga xam ne si jàng rek dana def. bu dee wàllu espace jullit yaa koy def mais ñeneen ñi duñ duñ ni ne sonn yooyu ñoom ànduñu si dañu ànd ci. même kuy nekk na am doole. am na ñoo xam ni ñu ngi taxawal ba mu continué ci réew mi. ma tudd tur na say kii. waaye mënoon naa andi ay dugub jox la nga yëg ko léegi. waaye nag loolu moo ko def mais am na ñoo xam ne nii. limitation tax bi dafa xaram ci ñoom tax bi tax bi man baat tan. effectivement. waaye dañ koy def tashriic ci ummal islam yi loolu moom mënoon naa andi dugub bi léegi. dëgg la dëgg la ay yu si bari mais dañoo bàyyi. xam ni professeur dëgg la ndax toog yi mu toog fii gis na ni idée yu bëri jaxasoo na mais géré na ko. wala nga ni wala nga ni recteur gis nga yu contradiction yi fexe nga di si man xam naa sama contribution du bari damay tontu damay tontu samay question rek première question bi dafa wax ni maa maanaa daniyatu dilaala wa qataiyatu dilaala en fait question la boo xam ni waaye sama question yaa ngi bëri waa ngi bëri de <laughs> euh, question bii nii ci wàllu usul bu ñu ko comprendre rek cinquante pour cent dinañ ko dinañ ko dinañ ko trouver si débat bi parce que li ñuy débat li ñuy débat mooy loo xamante dafa dugg ci danyeetu subut danyeetu dilaal c'est-à-dire mënoo indi texte boo xamante ni boroom xam-xam yépp d'accord nañ ci ne ci ne lii la déggin yépp d'accord na ci lii la lu mel ni julli tisbaar xam nga julli tisbaar ñëpp d'accord nañ ne tisbaar moom waxtu tisbaar ñëpp d'accord nañ duñ si discuter ñeenti rakk yi kenn du si discuter mais ci problème bii nii da nga gis borom xam-xam yi def nii borom xam-xam yi def ne de kon question fiq la zanniye bu ñu ko waxee mooy dale da ngay xam ni texte bii nii ñëpp dëppoowuñ si moo tax mënoo waat ni moom la da ngay jëme njott bu dee xat ay na da ngay wóor ne texte bi source bu leer naññ da ngay waat ni moom la kooku nag maa ngi maa maa ngi wax tamit ne Euh, problème euh, problème bu amee ci diine ci ñu ñu ko suñ sëriñ jàngale ki war a wax ci diine xam nga dafa am ñett dafa am dafa am alwaaiz am almufti am alqaadi alwaaiz mooy ki fer ijji di liir ay téere di wax nit ñi naan leen bàyyi leen nangam def leen nangam ci idée jàmbur lay demee bu dee almufti nag mooy ki nga xam ne problème diine su taxawee dafa war a peeg ngir yépp école yépp peeg tamit mbooleem matière bi wax ci xam-xam daal ni lii la bu dee xaadi attekat bi nag mooy exécuté moo laan danaan def leen ñaareelu sama ñaareelu question mooy seen bi dafa laaj nee na ndax ñi nga xamante ni dañuy dem di sëy di sine bañ a am doom comme ñun ñaar ñu takkante mais na suñu mariage bi ñu takkante buñ ci am doom loolu la loolu lay laaj léegi nag xanaa <laughs> Euh, léegi léegi ñun ku fi am doom ci ñun nga yëkkati loxo am nga doom damay laaj ku fi am doom ci ñun na yëkkati loxoom wala problème bi nekk afaraytum ma tumnuuna antum am naxnu kon ku ko joxe loxoom kese nga ànd ak nit mu nekk deret te ma nekk lumb ay yax roofu lépp yoofu yawa wala yàlla la kon nañ ko bàyyi ci loxol yàlla bu ko defee nag am na ci yeneen ayat yeneen ayat am na ñoo xam ne yàlla leen di wërsëgale doom jaxase ko góor ak jigéen am na ñoo xam ne yàlla leen di jox góor di am na ñoo xam ne yàlla leen di xañ doom ñu sabab lu ba sonn nag dara du loolu la yàlla bindee àdduna tabaarakallah ah xanaa ma jii ma tontu rek ci ci ñeenti ngir yi boo demee ci ma njëkk ci ngiru Ahmed ibn Hanbal parce que moom moo si moo si wax loo xamante ni borom xam-xam yu bari xëy na am na nu ñu ko gisee Ahmed na Hanbal ci boppam moom moo wax ci boppam daal ne dagan na ci jigéen gii sëy mu ne bëggumaa am doom def pexe yoo xam ne jël dawaa dafa wax dawaa un mu baax fi islaam mu jël garab boo xamante ni dagan na ci lislaam mu di ko jëfandikoo pour bañ a am doom moom Ahmad xam Hanbal loolu la wax dëppoo na ci ak Abu Hanifa Abu Hanifa moom dafa wax ni <laughs> Abu Hanifa moom moom dafa wax ni moom dëppoo na foofu ak Ahmed mais benn charte la si mooy na ci jëkkër ji d'accord bu dee imam Shafi'i moom ñaar ñaari xaaja am foofu benn bi dafa wax ni bu dee dañ koo nar a def seen diiru diiru sëy dafa araam ndax day dugg si taaqim day dugg si taxdid taaqim mu abbat bu dee nag dañ koy def pour situation moo taxaw wala neexagule wala bu leen neexee ñu am ko kooku dafay dugg ci azlu moom da koo dagana shaafi'i bu ñu ñëwee ni ci sama sëriñ bii nag moom <laughs> mu imaam Malik imaam Malik moom dafa lànk ba matt baaram ba ba tax ko waa imaam Maalik nee na ñaar ñuy sëy lépp luy empêché pour ñu am doom araam la ñuy def ko moom imaam Maalik loolu la wax kenn rek ci ngiiru imaam Maalik moo ci génn muy imaam Qurtubi mi nga xam moo def jaamiul ahkaam boo demee ci téeréem ba imaam Qurtubi ci boppam moom rek moo wuute ci biir ngiiru imaam Maalik moom ni mu bindee texte bi dafa ni euh, jigéen ak góor bu ñu dee sëy empêché ndox mi teree am doom pour ñu bañ a am doom kooku laa maaneexa la wax waaye lawlun min al xatli waaye lawlun min al xatli waaw foofu kooku lawlun min al xatli waaw ci mbiru imam Malik am na koo xam ne kii xatli direct la mais am na koo xam ne kii bu ñu nee tous les moyens sont bon nga yàq ko bu ñu lay tuddee moyens yëpp ngi fi yàggu na nga ne loolu da nga koy tuur nu lay tuddee lawnun min at-taqi façon la ci rey du du rey complément mais façon la ci rey ndax nee nañu mooy yëpp pare na kii pare na kii pare na ba seen yaram ñoom ñëpp kenn ku nekk sax ba nga sa morom nga ni mi yëpp gaa ñaa ngi tere ndox ndox ñu koy tere yàq sa loolu la sa nijaay moom suuf si posé woon euh, question benn nit ci ci taw Abdou Diouf yéen ngi intervenir tuur ndox te ndox mi yàlla bindee nit te nit ñi mu seere kenn mënu ko am ku dul yàlla ngeen ni ndox moomu nañ ko tuur bañ a yàq moo ko gën a nekk yàlla te ngeen baal ma xàq ngi dugg ci bu xaw mais bu ñu bu ñu nee planning ku góor ki moo ko war def wala ku jigéen ki moo ko war def. kan moo ci sotti ko ba kàttan neex kan la hmm? kan moo ci sotti ko ba kàttanam jeex mu dem ba mënatu ko ñu ne ko bàyyi demal mu wuti keneen bu keneen ñëwee it loolu sotti ko ba jeex ndax résultat am di sotti ndox di sotti dugub ci kekk bëgg mu sax mu kon ku góor ki moo war a ko jigéen kii la di dem kon nag ko déggoo eh, <laughs> sama xalaat rek laa wax sama xalaat rek kenn ku nekk mën nga génne waaye du di nga gis koo xam ne kii dana dem ba bët ya rek ko koy dese ak yuur waaye dootul man dara dañ ko naan abal ma ma wuti keneen ndax yow kan koo waaj te fekk na ci dëgg-dëgg waaj la te am na sama benn bàyyi bu ma mos a wax ni sëñ Babacar ma ne ko la bay mu ne moom boo watul bis boo xëyee di sànn day di suulee hmm? boo watul bu nekk nga xëy sànn day di suulee <laughs> dégg nga sën bi boo bëggee boo gisee may may may indi lii nii xam nga lan laa bëgg ndax fii di mooy école bi nga xam ni fu xam-xam balle Sénégal fii la balle léegi dama bëgg ku fi toog xam ni luy xam-xam ak idée mi ngi fi waaw li may bañ rek mooy ñu yaakaar ñun ñun daal ay kii lañu <laughs> benn kii rek lañ dem waaw waaw dama bëgg moo tax may indee noonu waaye du du du. dégg naa la dégg naa la dama waxtaan la. waaw kon kon alhamdulilah dañuy jàng ci Maroc. waaw. benn prof boo ko seet mu ne day démissionné classe bi ñu nekk. gaa yi ne ko lu tax mu ne man rek maay joxe joxuñu ma loo xam ne dinaa ko gëstu ji ëllëg kon bàyyi leen ma ma dem. waaw na kon xam-xam amul kilifa amul xam-xam moom fu mu génn rek lii lii seen papa Abdou wax na wala wala am fusikum awi وربي إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ci xam-xam la ñuy waxtaan kon na ñëpp ku bépp ñu waxtaan ci bañuwul waaye boo nee damay wut Serigne Mbaye du am sens ci waxtaan bi kon kon la xale ba waxoon Seydina Mouhamad ba mu tëralee paraaw mu ne ko am ara yu am wax yu ara yu am la wala wax yu la ak la ko mu ne ko xalaat mu ne ko kon sensé na xam-xam dañ koy jox jokkalante ci anam bu rafet kenn bañ a xas kenn bi kon boo xoolee ci point boobu ngiru imam Malik moom moo taxaw moom la sëñ bi àndal ci loolu kenn moo génn ci ngiru imam Malik muy imam Qurtubi euh, dernière question bi nga xam ne moom laay tëje kii dafa laaj nee na ndax boo nekkee ci ngiru imam Malik am nga droit jëfe beneen ngir waaw foofu ci biir mbiru imaam Malik ñoom wax wax nañ si werante nañ si ñaar kenn ki dafa wax ne bu dee anta yow nit ki il est tere nga jàngoo maanaam spécialisé woo ci diine spécialisé woo ci diine kooku li la war mooy tënku léegi boo dee tënku nag da ngay tënku ci ngir gi nga nekk amoo droit tënku ci beneen mais bu dee koo xam ne jàng na jàng na di boroom xam-xam bu situation ñëwee mu xool gis ni situation bi ngiir gi mu nekk nii méngoowul ak situation bi muy dund te beneen ngiir wax na si te wër na mu jëfe boobu dinaa leen si indil ñetti preuve bi si njëkk mooy ci ngiiru imaam Malik bu kii daanoo ci teen mbedd bu daanoo ci teen nga xam ko xam nga dafay nekk sobe léegi dama fàtte imaam bi teewlootuma ko ci kii mais yor naa téere bi mu sangoo ci ndox mi ba pare ñu ñëw ne ko ndox mi nga sangoo médd def see daanu te yow ci ngiiru imaam Maalik nga bokk dafay araam nga sangu si te fekk julli na jumaa ba pare mu ne na kon jël naa ngiiru Shaafi'i ndax moom ànd na ci euh, suñu sëriñ bi suñu référence Seydi Hadji Malick radiallahu taala anhu ngiiru imaam Malick ñun ñëpp xam nañ ni kenn du si génne azaka ci gerte daawuñu génne azaka waaye bi mu demee ba gëstu gis ni réewam économie bi bi si gën a bari mooy mbay te ëpp li ñuy mbay mooy gerte te gerte mën na dem un an mu daal di si génn téere wuuteeg ngiiram ci situation bu mu arrangé ñu mel noonu suñu sëriñ sëñ Babacar Si radiyallahu taala daan na ko def na ko euh, ci fatiha boo dee boo dee jàng boo dee julli ci ginnaaw imam muy jàng fatiha dangaa war a not mais moom dafa ni sama fatiha duma ko bàyyee ak kenn waaw léegi nag kon ñu ni la koo xamante ni boroom xam-xam la ci ngiiram mas naa toog ci mufti diyaarul misra muy alim jumaa ñu posé ko benn question ci ne jigéen gi nàmpal bu dee raab xaleem xam nga ni ngi laal awraam léegi da fekk ne jàpp na te li mu raab xale bi bari na heure bu ko laabee rek dafa war a dem jàppiwaat te ñu ñëpp xam nañ ci ne ngiiru Maalik boo raalee awra da ngay dem jàpp waaw bu duuni ay xaay la da ngay dem jàpp mais bu dee Shaafi'i ak Abu Hanifa ñoom nay nan la loolu léegi mufti diyaar ma dana ko yow ba ngir nga bokk mu ne ko Maalik mu ne ko comme da ngay nàmpal loolu arrangé wu la jëlal Abu Hanifa ak Shaafi'i léegi nag foofu teg nañ fa ay charte ak i condition yoo xamante ni moom lay dem. mazhab Maalik benn une minute rek ma mazhab Maalik ngeen baal ma li tax mu naqaree dégg mooy dafa am ñaari extrémité benn bi ñu ngi koy woowee saddu dariati moom rek a ko ci am ci gaañ kullu maa yuaddi ila xaraamin fa huwa xaraam moom toogul xaar ba mbir mi xaram muy doog a àbbu lépp lu la ci yóbbu xaramal moom moo gën a jël précaution ci ngir yi waaye tamit bi ko may parti boo xam ne nit ñi dinañ ci mën réfléchir mooy amalu ahlil madinati ndax am na atta yoo xamante ne ci loolu la ko tënkoon te ñooñu ñu la concerné woon moo tax ngiru Malik daf ci am yoo xam ne kenn du ci werante ak yoo xam ne dañu ciy werante maa ngi jël exemple ci basmala bi ci fatiha boo demee ci imamul Axdari daf ko def puri xatil basmala seen Hadji Malick pour tënk wax ji dafa ne bu leen sonn ci ngiru Malick ci masala yu mel noonu karahatun ibahatun nadbun wujub madhabu Malick xawaaha ya habib ci benn masala duñ ci gis ñeenti atte yu bokkul te ñëpp ay ponkal la doon ci biir madhabu Malick mu nekkoon foofu bu yooyu bu ñëwee seetal ki la gën a doy nga defee li a la jàngal Bamba waaw kon nag suñ sii di sëriñ ah lii de lañ ñu santoon yàlla baax na yàlla ah, Hadji Malick euh, sëriñ ñu ngi rafet lu bu baax sa sa bax si bi rafet na trop xam naa nag am naa ci benn point bu dee may nga ma ko rek ma wax ko nga solal ma rek mbubbu mbubbu taalibe ma dama koy sànni rek laaj la si ba xam ci sa commencement wax bu wax nga ba ni ci njaboot ni mu baaxee ba suñu maam Ibrahima ñaan na ko suñu maam Zakaria ñaan na ko may poser question rek di laaj rek est foofu tamit ki bëgg wut ndëgër laay ci planning familial du fa taxaw ndax suñu waa Ibrahima cent vingt ci ñaari jabar nga am ñaari doom rek yéen ci yàlla kooku ci benn doom rek wala ci yàlla. ci yàlla gisuloo gisuloo foofu sax Mariam mu mu juddoo Mariam yéen Sayyidatuna Mariam am yaay sa am. nan la juddoo. am yaay sa am sa moom moom avant yaayam di ko am ñaata at la toll. qaalat imraatu imraana am na lu ko jiitu woon sabaxoon woon yi soxna si dem na am lu ëpp quatre-vingt-dix ans jëkkër ji mhm. ne doom ci kaw ñu ne comme que picc moo am xalaat am doom naa ñaan yàlla am guddi googu la jaxasoo ak borom am doom mu dem ba yëg ni am na luy yëngu ci biiram qaalat imraatun amran rabbi inni nadartu laka maa fi batni muharraman taqabbalaha rabbuha bi qabulin wa ambataha nabatan wa kafalaha zakariya wa kullama dem na sax ba ni ko kal unsa wa inni samaytu ndax ni wa laysa zakaru kal unsa wa inni samaytuha maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani fa taqabalaha rabbuha bi qabulin wa ambataha nabatan wa kafalaha kullama daxala alayha zakariya wajada indaha biqaala bu dema dema dema dema dem ba doom yàlla ko yor yàlla ko yor mooy kii yàq boppam nag ñu du ko am yàlla lay xeexal xeexal ak yàlla nga defee nag foofu loolu rek laa laa la la ciy tontu. Ah. tabaarakallah ah. waaw la ko waaye loolu bëggoon wax dégg ko rek. waaw dégg ko aussi. waaw loolu dama ne laa si doon wax ma ne est tamit comme ni nga indee exemple yooyu tey bëggoon a jël ndëgërluwaay ci planning familial est-ce que du ko jël tamit comme ndëgërluwaay comme yow ni nga ko jëlee ndëgërluwaay ci ne njaboot baax moom mu jël ko ndëgërluwaay ci ne ku dund 120 ans am ñaari jabar amul ñaari doom jabar bu nekk benn doom est-ce que duñu bi yàlla def mu gën wala yonent yàlla Zakaria ñu dem ba non damay damay laaj rek yonent yàlla Zakaria am lu dul benn doom même ci suñu sëriñ suñu sama turandoo maam Ousmane nga jox exemple moom it benn doom la am est si exemple yooyu nga joxe nit si sukkandiku rek dama doon laaj rek pour ndax xam nga xam daara bi fii te fii mooy baluwaaye xam-xam te man gis naa ñoo xam ni jàngandoo naa ñoom teguñu bët fu dul fii te ñi ngi bi te fii ba jamonoy baax fi la masail yu sew yépp yu kenn nangu woon a wax Seydi Hadji Malick moo fu njëkk a taxaw ne borom jalaane dafa juum borom jalaane muy tafsiru jalaane ku ko masaan wax nan lay rey moo njëkk a taxaw ne borom jalaal dafa juum moom Seydi Hadji Malick kon fii la njëkk a génne masala yoo xam ne nit mësu koo tudd ci loolu rek mun ako ñu baal ma xàq asalaamaaleykum tabarakallah

gën a kontaan ci euh, kaddu yi nga xam ni jub na fi parce que wax dëgg euh, kaddu xam-xam dëgg la te tamit également ni ñu ko déggee également dëppoo na ak li nga xam ni ñu ngi ci science parce que sëñ maa ngi dégg bi mi ngi doon expliquer procréation médicalement assistée loolu mooy li nga xam ni amul fii ci Sénégal beneen bi mooy Euh, lii nga xam ni ñu ngi ko fiy wax muy wàllu planification familiale bi ka Sénégal de yëkkati leer naka ni am na ñi nga xam ni war nañ ci mën a wut porox ndoolu wala waaye nañ ko seet dañ ci pour dimbali ci njaboot waaye leneen taxuñu cee jóg ndaxte ci biir médecin yi ñuy wax euh, surtout man ñi ba ci xam ñu ci bëri ci daara yi lañ jaar donc dañuy jàng suñu diine ñu yar lu ci diine après ñu leen jàngi médecine donc lépp lu ko xam ni ñu koy def macha allah dañ ci soxla euh, abi suñu kilifa diine yi muy lu am solo ci ñun dina indi njeexital bu mat ci ñun parce que euh, ñun dañu jàpp ni lépp lu ñuy def war na dëppoog suñu diine waaye dañu jàpp ni lépp lu ñuy def tamit ëllëg si biir dinañ ko laaj donc muy lu nga xam ni dañ ciy seet suñu borom donc muy lu nga xam ni également dafa am solo ni Sénégal dañoo am chance ni am fi ay nitu diine yu jàngal man mii sëñ Moxsin kër daaru sëñ si laa jàngee ci ndaar donc muy lu nga xam ni lépp lu ñuy def dañ ciy soxla macha allah seen seen seen xam-xam muy lu nga xam ni daf ñuy dëgëral muy lu nga xam ne également daf ñuy leeral ndaxte euh, xëy na suñ nee planification familiale mën nañu njort ni ci tubaab yi la jóge waaye tubaab yi ma xam naa ci Sénégal bi ni yàlla dimbali na leen ba def na ci ñun fulla def na ci ñun lu nga xam ne lépp lu nit yëkkati te dëppooloog suñu diine am nañu fit am nañu jàmbarte pour ni la lii kat dëppooloog sama diine duñ ci taxaw duñu ci wax te duñ ci taxawal te tamit également muy lu nga xam ne également loolu ci fii lañ ko jànge ngeen jàngal ñu ñu gëm suñu bopp ngeen jàngal ñu ñu xam ni ñooy kan ba fu ñu taxaw suñu suñu suñu suñu suñu kàddu ñu koy déglu ngir suñu gëm ak suñu pas-pas donc muy wàllu planification familiale bi ñuy wax euh, euh, c'est vrai que am na yu bëri yu nga xam ni mën na ci sosoo waaye su fekkee nii rek dañu topp suñu diine ji ñun jàngal duñ ci def lenn lu nga xam ni ëllëg si biir dinañ ko loyal suñu borom beneen bi mooy wàllu planification familiale bi lépp luñ ci jublu mooy dimbalee njaboot yi ndaxte ci loolu la xam loolu lañuy ñuy waaye tamit ñu ngi bàyyi suñu di xel suñu diine li mu dëppoo ak suñu diine donc su fekkee ne planification familiale bi dañ ko yëkkati dañu gis ni jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ñàkk seen bakkan moo joxe woon léegi chiffres yi toll ci 392 pour cent bi naissances vivantes jigéen ñooñu ñu gis ni war nañ leen a mën a sauver mbaxte su fekkee ni am nañu doom yenn saa yi am na ci biir jigéen ñooñu ñi nga xam ni day nex dañuy nex jigéen ñooñu toll ci à peu près vingt neuf virgule quatre pour cent ñu ne jigéen ñooñu su fekkee ni waxtaan nañu ak ñoom ba nga xam ni dinañu mën a wut ay pexe ak ak seen i borom kër ñu mën a soroyool seen ay njur mooy fexe ba nga xam ni lépp lu nga xam ni dëppoo na ak seen diine dëppoo ak seen ay ak seen aada dëppoo na ak li nga xam ni moom la ñu gëm ñu jël ko ndaxte lépp lu ñuy def ak ñoom dañ ciy waxtaan ak ñoom ba ñu d'accord amul lenn lu nga xam ni dañ leen koy imposer wala am lenn lu nga xam ni dañ leen koy defal te duñ ko loolu je pense que lu nga xam ni lu am solo la ci wàllu santé donc produits yi nga xam ni lu wàllu planification familiale xam nga da soo nit ñu bëri suñ ko déggee dafa am fenn fu nga xam ne dañuy fa la intervenir moom mooy xëy na ci wàllu procréation mooy fa nga xam ni fa la nit sosoo donc loolu il faut laaj na ñu leeral ko mu mu leer ci bopp yi ni ñun su fekkee ni dañ ko def ci waaye dencante yi la te tamit produit yi la nga xam ni amul benn gaañte bu nga xam ni war na ko mën a indi ci nit yi la ñuy utiliser donc ñu koy suivre produit yooyu balaa ma fiy dugg su fi duggee te même bi fi duggee sax suñ ko jax jigéen ñi dinañ leen ci suivre ñuy xool ni également est-ce que li ñuy ragal ci planification familiale war na tax ñu bàyyi su fekkoon mën nañ ci sauver benn ci jigéen rek laa wax ñu war ñu ñu bàyyi jigéen boobu mu faatu parce que dañ ni nañ ko nañ ko bàyyee boppam parce que loolu lañ ñu sax donc loolu la la laa bëgg ñu kii ka bon am na lu bëri luñ ci ragal dëgg la donc moo tax ñu soxla position diine bi soxla position euh, euh, borom xam-xam yi pour ñu gën ñu cee jàppale ndaxte mbir mi dafa ànd ak éducation dafa ànd ak yar dafa ànd ak diine dafa ànd ak xam-xam donc ku nekk ku nga xam ni yaa ngi ciy dugg laaj nañu nga nga waxtaan ci ak sa borom kër laaj na également nga waxtaan ci ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu santé bi parce que nit ñi Sénégal comme ni ñu ko waxee dañu séq mbir yi dafa am ñi nga xam ne xëy na ñoo wàllu féete ci wàllu euh, médecine bi am na nañu séet féndi ci wàllu diine ñooñu nag war di lëkkatoo ak seen xel ba pare àndaloo ci lépp moo tax solo euh, euh, daje bi am solo ndaxte xëy na euh, am na ay questions yi nga xam ne ñëw nañ fi ñu ni euh, est-ce que ji euh, kii dafa ni jigéen ji nga xam ne dafay utiliser planification familiale biiram xaw ci rëy est-ce que am nañ ci pexe ma wax ni loolu su fekkee ni produit booy jël waxuma sax wàllu planification familiale produit booy jël su fekkee ni am na lenn loo nga xam ni gis nga ko sa yaram te seetlu woo ba ci war nga delluwaat ca la ko joxoon ngeen waxtaan bi beneen bi euh, am na ku ni ku posé ni su fekkee ni nit ki dafay jël wàllu planification familiale te gisatul ay reglam est-ce que am na danger ci ci ci yaramam amul benn danger ci yaramam c'est vrai que jigéen kuy gis deret ba gisatu ko mën na foog ni deret jooju dafa des ci biir yaramam te mën na ko indil yeneen jàngoro déedéet c'est parce que processus la bu nga xam ni su fekkee ni processus boobu déclenché wul deret du am donc processus boobu la médicament yi di donc ba nga xam ni deret boobu mu doon gis mën na ko bañ a gis waaye du am benn conséquence ci yaramam beneen bi également am na keneen ku fi posé question euh, est-ce que euh, conséquences yi nga xam ni planification familiale mën na ko am ci nit ki planification familiale suñ ko joxee nit dañuy laaj ñu koy suivre muy dellu si waat ci moom ci ci ci ci ci structure de santé yi ñu koy suivre parce que lu ci bëri am na jigéen ñi nga xam ne au lieu que ñu dem ci structure de santé yi dañuy dem ci seen benn xarit mu wax leen rek ñu commencé utiliser benn produit fekk na xëy na produit boobu dëppoowul ak seen yaram ak seen organisme ni muy fonctionner parce que loolu également ci science la donc ñun rek également lépp lu nga xam nit également ñu ngi ciy def ñu ngi ciy jéem a wut euh, euh, euh, li nga xam ni moom mooy ngërëmalu borom bi waaye également pour dimbale nit ki pour ñu nekk ci gën a jàmm xëy na nag yooyu question moo fi moo fi ci wala am na beneen bu mu gis waaw kii dafa laaj ni est-ce que mën na arrêté ay njuram ci wàllu wér-gu-yaram su fekkee ni wér-gu-yaramam mayatu ko mu mu ëmb est na def planification familiale am na jigéen ñi nga xam ni suñ leen seetee am na yenn feebar yi nga xam ni biñ ko nattee ci ay étude àndul ak ak ëmb donc dañ naan la yow kat feebar bii nga amee soo ëmbee sa bakkan mën na nekk ci xol waaye comme ni ma waxoon planification familiale nit ki moo koy nangu nit ki moo koy jël amul lenn luñ koy imposé ñun nag dañuy joxe suñu xalaat te wax ni mortalité yi réet na ci Sénégal te am nañ ci pexe te war nañ ci mën a def dara pour wàññi leneen nag mën na am mën nañu euh, jàpp ni leneen nañu ci gannaaw waaye lii rek moo ñu tax a jóg donc di leen gërëm di leen sant ci invitation bi di wax ni wax dëgg liñ fi dégg tey gën na dalal suñu xel ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def donc di leen sant di leen gërëm su wax ji nag amee lenn lu nga xam ni euh, euh, jub na ci ngeen xam ne suñu borom la su fekkee am na lenn lu nga xam ne tamit dëppoowul ak yoon ngeen jéggal ma rek xam ne ci man la maa ngi leen ci gërëm di leen sant wasalaam ñaari jigéenu tubaab mën nañu am doom te soxla góor dama cee doon nga yegg rek ñu gën a gudd bi saa leen doy na ñaari jigéenu tubaab ci seen réew mën nañoo am doom te duñu soxla góor day wane ko dara loolu la ñuy wax la culture des cellules souches docteur xam na bu baax la may wax fi nekk téeméeri at la ñu bon ñu fay ak ñu fay ak tubaab yooyu ndax ñoom sax ba ci tànnute mais li wér te wóor mooy ñaari jigéen fi ñu toll nii ca tubaab yi ci borom ñaari tur mën nañu am doom te bu ñu soxla góor donc man soxlaa dar bi wasala la ñu yoon wi tubaab yi jaar bay ci fi ñu yegg si bëgguñu si jaar loolu bu ci jaaree bu ko defee egg dafa am seen jaar attention dañuy attirer attention doomu aadama kon kenn fii lañu daaroon ñoom tamit yu mel nii lañu la fekk egg nañ ci manipulation génétique te ñun ak ñoom. bokkuñu suñu conception ci dund bi bokkuñu culture bokkuñu aada bokkuñu xay bokkuñu diine bindee bi nga xam ne amuñu amuñu lenn lu ñuy contre ci idée yu mel ne maanaam euh, sorel ay njuréel ak tam nag bàyyi xel rawatina li docteur wax suñuy jigéen ñi faatu yëpp njuréel bokku ko seen xajmaat bi ci ànd na mukk ci ko àdduna lu ñu mën a def def xeex loolu pour saafara loolu fii ci kër gi comme sañ benn moo bàyyi xel ñu dañ koy def dafa jaaru loolu ñu taxaw ci mais je crois que buñ ko askanal ci planification familiale moom tellagu loolu possibilité la ci sorel mbiram ak topp ak digal ko ak conseiller ko mais c'est la pauvreté du plateau médical yi jigéen ñi loolu jigéen ñi yi loolu jàll seen réew loolu problème bu xelal di médecin yi ak jumtuwaay yi def seen loxo ak ak tam nag Euh, yitte bu leen di jox ak gëdd bu leen di jox ñoom suñu borom xam-xam ak yéen mën a moytu loolu xëy na planification familiale maanaam maanaam moyen la ci biir yeneen i moyen mais là je crois qu'il s'agit de pauvreté du gâteau médical te ci Afrique yëpp yëpp euh, alors euh, su ko defee donc nous avons des questions pour dellu si waat man dama jël approche discuter du principe pour ñu bàyyi xel ni ëllëg mën nañu yóbbu ci lu demee ay déviation merci aussi yoo xam ne il faut ci jaaree ba suñu dellusiwaat loolu la ñuy def wala ci attirer attention te kenn e doon ay planification te egloo ci ndem xam nga li ngay wax benn su ko defee am na tam ay ay ay question yi ba ay nit laaj yoo xam ne man yaakaar naa si ñu doon wax ci affaire planification bi nga ñu jël dégg ci nee euh, gi dafay nàmpal euh, xale bu am juróom weer ci biir loolu mu jàpp ak moom dafa neef dafa neef neef baaxul nan moytu na foofu baax na ah, neef baax na non mën na baax sax maanaam juróom weer maanaam lu tax ma ni lii war nañ ko moytu xale bi am juróom-benn weer yàlla may na ko ñaari at ci wenn ndeyam moo nàmp ci ngir am bépp njariñ bi jóge ci nàmp ba ñu bëgg ko ko parce que beneen na xam ne commencé di loolu tam dëgg benn ñaari ba jigéen jigéen ñu ay machine ñun war ñëpp ñu di jur foofu ay wulu kon ñun ay lan lañu ay nit lañu ñun ñun góor ñi lan lañu ay nit lañu pourquoi ñu bëgg a yàq suñu ndox ci neen non parce que duñu yàq suñu ndox mais dafa am nañu droit rek si merci beaucoup mais dama ne jigéen ñi am nañu temps de wala ñun ñoo koy provoqué non jigéen ah mooy provoqué wala ñun ñooy provoqué ah, dama ko ni waaw ah. baal ma baal ma dama ko ay dama ko ni dama ko mu ne neef am na ma ne ma ni ko kon lu góor ñi def mu ne ma déedéet ma laaj ko ndax jigéen ñi ñooy provoqué wala góor ñooy provoqué dañuy waxtaan rek jigéen ñooy provoqué wala góor ñooy provoqué. maanaam maanaam autant de couple autant de réponses ah autant de am autant de réponses am na boo xam ne seen jigéen ñi waaw li góor ngeen wax am na boo xam ne ñaari xaw ma nag kenn ku ne am na toppul sa bopp ndax yow yaa ko war a yaa ko war a mais li yëpp tamit woon mooy nag li ñu mën a wax nag nañu nangu ni xale bi am na xar ci ndeyam alquran ko indi ustaaz bi saa wax na ko léegi wala walidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamil liman arada an yutimma ridaa'ah ku bëgg maanaam jëriñoo jëriñ la ca naam ba nañu bàyyi xale bi kon mu bénéficié ci loolu ci moo moo Maodo yaa ngi tontu foofu dama lay laaj ne ndax biir mi tas nañ ci ba pare. sànq maa koy laaj docteur moo ñuy tontu foofu. dañu wax ni wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni liman araada liman. liman araada waaw an yu waaw waaw liman araada an yutimma. waaw mu dem ba fële mu ne. wa hamluhu wa fisaaluhu salaasuuna. salaasuuna shahran boo ci génnee ñaari at lu cay def. dañuy ëmb bi ak nàmpal gee feeral bi fanweeri weer la alquran wax am na ñu ci xam gàññun waaye waxi alquran la waaye dafa ni fële jigéen gi na nàmpal ñaari at yu mat mhm. mais ci biir ñaari at yu mat yee boo ci jëlee ëmb beeg yépp jëlee ci boo ko génnee ci biir fanweeri at fanweeri weer ñaatay def si mën bi est damay laaj docteur bi ndax doom jooju bu juddoo dana mat six mois moo ciy des mu fekkee ni salaasuuna shahran xaw yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman arada an yutimma radaa waaw mu dem bu fële am na fu ñu waxee ne wax na araahu wa fisaaluhu fi amayni am na foo xam ne ci def ni wa xamluhu wa fisaaluhu ëmb bi ak wasin bi ak feral gi yëpp ak nampal gi yëpp ñi fanweeri weer lan moo ci seen gis-gis maanaam xëy na kon dañuy delluwaat ci léegi masaay yi sax yi nga xam ne wax kenn ku nekk seen aaya wala en ci àll sa ko waaye waaye waaye ñu wér te wóor waaw waaye lu yaakaar naa ne war a nangu ni xale bii nàmp daal am na ci yaayam deew ma bee ba mu sotti ba pare lu ñuy defee ba ñu def honnêtement man mooy sama waaye ci ñoo loolu nag ci ñaar ñu ko seq la. bien mm-hmm. mm-hmm. su ko defee xale bu ca parce que tamit loolu xale bi ci biiru ndeyam te fekk na ndey yaa ngi xale ba nekk ci biir ba meew moom mën na soppi. su ko defee loolu yëpp li ma sama yàqu mën nañ ko bàyyi xel seet ni ma gis kenn ku ne ko seetal aaya bala arrangé mais nag sama position mooy dëgg dëgg nekk moom bu fi waaw waaye wax waaye ngëmu kii mënuma ci wax kantaan jaam na ne lu dul yàlla jaam na lu dul yàlla bindeef yëpp te bindeef kon jaam na benn bi si mujj parce que waa soleil ñoo ko laajte ñoom ne lan mooy tax lan mooy xalaat ak taxawaayu maanaam xadara tiyaaw ya xadara tiyaaw maanaam xaw la fan bi nas na am dañ ko nangu am dañ ko daal am dañ ko daganal am dañ ko xaraamal d'abord ñun fi ñooy daganal wala ñuy xaraamal et ensuite je sais que man ne léegi ñun barew na ki ko wax philosophe la bu ñu tudd hygiène

parce que seen si borom kii nga di jaral waaw bon ñu gëm nañu ànd parce que ngay wax léegi nii ku dëkk ci biir sànq la ñu sàngalaat xam naa ne gis nga dafa war a xëy déggul lool ku dëkk xëy xam suba boo xëyee sànq la ñu sàngalaat te nag dafay am lu ñu jiital suñu diggante suñu borom ba tax na kon ñun loolu dañu ni ay technique ci lu demee nii lii parce que bay wax nag noonu défendre wax nañ ko te mooy suñu xalaat tanzimul nasl wala tahdidul di wasaayil yoo xam ne dafay dafay dafay dafay dafay xiir nit ak yóbbu nit ci maral xal yi wala xatarul xal yi ilan abad xadarat ci yàlla di ko d'accord parce que jël implant wala stérilé wala pilule du lendemain yéen a ngi waxtaan ñu ne masque mais ay nit ñi koy def ci docteur wax na ko ñaari yoon ci waxam ak nee na woy dencante moo ko tax la mais ñi dencante wu leen ko jëfandikoo la te sànq sànq ci mbaaxu yàlla Moussa bi am naa lu ñu jàpp ci suñu yi nag xaraam xaraam te dañuy jëfandikoo ñeneen ñoo xam ne du ñu wëy dencante ñu koy jëfandikoo mu yóbbu leen ko yóbbu an nasa ilan ñu dafay jaar ñu war ko jëfandikoo sabdu daraa'i ci ñi nga xam ne jàng ñu ci fiq niñ koy mën a waxee ñu ko mooy la fin justifier moyen xam nga mbay resin resin nga mbay ko xaraam waaye boo ko bayee jël ko dem jaay ko un vinificateur mooy ku koy nal di ko def sàngara li nga def xaram sa dal sa tëj xolam lu jëm très honnêtement ñun intéressé wu ñu ko Seydi El Hadji Malick radiyallahu position ci loolu mooy xarit koy force bi indi indi avancement ci réew. loolu mooy force bii indi am mot ay ressources humaines. ci la ñu mën a pour indi koomu réew mi. mais nag méthode bi ñu liggéey moom très honnêtement docteur au membre de l'OMS je ne sais pas aux invités présents que ce soit de tout un chacun que Seydi Hadji Malick la planification. dul ci benn xaala mooy xaala bi nga xam ni ndaw si feebar na ba ñu yëg ni bu ñu ko génnewul waaw waaw man d'abord ba ma xale yi waxee ni dama ci kontaan ma dégg ñu tuddal ma turu docteur yoo xam ni dañuy ñëw bokk si turu infirmière ak sage ma kontaan lool ma kontaan ci lool sawar tam ci bokk waaye ba demee ba indil ma carte carte d'invitation ma gis ñu la planification familiale jël suñu sëriñ ba daal war na daal enfant mais franchement je suis déçu franchement je suis déçu mën nañu lëkkaloo ministère mën nañu waxtaan ak ñoom mën nañu ànd liggéey ci loxo ne mais gisuma lu tax ñu war a jël suñu jàpp ci suñu symbole di ko def ci carte mu mel ne comme ni dañu dañu dañu dañu légitimer yoon ñuy def te xamatuñu li ñuy def amuñu ci xam-xam bu am yoon il faut aussi un peu de respect et ensuite ministère de la santé même dans le domaine foofu wax la ko kañ la ñu naan toppee suñu daara yi kañ la ñu yittewoo suñu daara yi man jox wax naa ko ànd ba nii di ma dégg te naa ko ba pare dinañ ko ayoo dafa mel na dafa am lu ñu bëggoon jàllale bu ñu tëlee ñu yaakaar ko ci daara yi laaj naa ça ne passe pas.